bon Pape Djibril le cas de Pape Djibril xam nga man souvent je l'appelle le perroquet de Jakarlo c'est le perroquet de Jakarlo parce que day dem jël livre naan texte yi ñëw changer contex bi ak verbe yi utiliser les mêmes mots il se répète Pape Djibril Fall li mu doon wone ci émission éthique bu mu doon wone valeur yi mu doon wone ak arñu bu mu doon demee yaakaaroon naa ne moom ci boppam waroon na def mea culpa war a def introspection autocritique xool exactement ndax moom nu mu doon waxee ak nu mu demee nii réellement noonu la demee parce que moom parfois dafa doon wax ne parrainage yi gars yi dañuy sa dañuy jënd achat de conscience la ñuy def parrainage xam nga politique dafa dafa dafa doy waar te tey mën nga tel a au point A mais xalaatal au point B lan moo fay xew tey yàlla def koo def koo wax ne le mensonge ne sert à rien lu mu doon inventé di wax na benn bokk yaakaar dañuy jënd ay parrainage moom ci jëmu boppam waroon na mën a bopp jënd ay parrainage dina lii mooy wane ne sénégalais yi dañu am éthique am luwaate am sens de l'honneur kenn mënu leen jënd képp ku ñu parrainé xamal ne yow da nga ko mérité ñu parrainé parce que dañu amal njëriñ Pape Djibril Fall nag lii ce n'est qu'une ce n'est que euh, de mise dafa li mu def sacc la am am am suñ maître bi suñ professeur bi nekk une dame vraiment ku ku ku am éthique wóolu ko ñun ñoo àndoon àndatuñu certes mu wóolu ko ñu waxtaan ci whatsapp mu seeti ko ñu jox ko lu mu ko jox mu ñëw daw ak moom tëj téléphone def ko boîte vocal ma ne opération audio ak opération boîte vocal du yóbbu nit assemblée nationale Pape Djibril Fall c'est une honte na Sénégalais yi gàcceel na. les jeunes qui font de la politique gàcceel na les intellectuels gàcceel na monde journaliste bi nga xam ne foofu la nekk gàcceel na képp koo xamante ne doomi sénégalais nga di aspirer nekk un responsable dans ce pays c'est la pire honte que l'histoire politique du Sénégal n'ait jamais connue Pape Djibril Fall il a déçu le monde politique il ne mérite même pas d'aller en élection jusqu'à ce que su nekkoon man dama doon wax ne man du ma dem élection damay bàyyi comme dañ may dama sàcc ay parrainage du ma dem ak parrainage jàmbur damay bàyyi la la la la la la la la chose qui la vérifie mooy lan mooy bu mu def conférence de presse am yëgul gars yi dañ ko fa eh, fekk attaqué ko nee ko delloo ñu suñu parrainage ñun démissionné nañ Pape Djibril Fall moom pour wax leen Pape Djibril Fall non non Pape Djibril du dara.